أولى من تصنع إسرائيل محمد بن عبد ويوم صار حج أربعين من أو ست أو سبع أو ورث الحج صار حج مكة مكة تبين azima gara rangara bi jot lay gis rek ndox la mu azima lu yaatu maa ngi ci kilo yëngal bi def def saa lu mu ci namm mooy kay jëm yàlla wala mooy wali na fi kalba wala mooy wali na fi ci dara dina lu ci mën a am daal ak rangara bi guur rëy la boo bis bi mujj ci àddina ba nga xam ne jant baa ngi rënk bàyyi ko ci sow bi saa mu jëm leer bu keroog yëpp di ñëw dañuy gisee ci ba nga xam ne rëng-rëng yi day nekk bind leen jaral lëm lu màggarale suuf si waxoon naa la ni ci kaw ñun ci lañ ko teg yàlla xewal ay bés ñoom dañ ko wéri ci mee bés comme fokk ji ba ba mu bañ yëngatu bu fekkoo ne mu wax ci ba yem ñu ci di ñem ci kaw géej gi nii daal ak loo soog tamit ci géej gu rëy ñu ci di yëngatu jant ba amul benn leer jant bi seen bu ko defee kooku mooy ñu taxaw di jot yëre ñu wan gis ko bi ñu ko jeexandoo mu waraat ko gannaaw ba ñëpp dekk ñu xoolee ñu jël seen jëm yàlla rek ñëpp teew ci kanam yàlla nag ñu doon jaamu te ñu doon jaamu yàlla rek ku ne dana wax ak yàlla te kenn du dox seen diggante kenn du la leen laxatoo ku nekk dana taxaw ci kanam yàlla lay ci leer dox seen diggante de bu fat ci ci bés boobu danga ragal yàlla rek yow masaloona a ah, bés ba ngeen di janoon moom seen jëm yàlla Sassarou dana gërëm kullum boog danaa fi lépp aji naam fàttali ci biir amma abdoulaye mu am dara lu ko dara su leen wëccu bi ñu dul saa si am leen lépp borom dem am laa am demu dem de dara ñu ngi gën ñu ci ci ci ci ba xam ne jigéen bi nampal dana fàttali muy nampal de jigéen bi am dana xalaat wëccu lam am bool waaw te du ko yëg ci màggal ci Ibrahim Diaw Ndoi Mor Diaw mooy jigéen ji nampal ismu faal soo xamee ne jigéen rek la jagoo soxla bu kaay saani ñu ci xaaral di ji laa ji bala kenn du def saa xaaral di ji laa ji ndemu kenn du def saa Mor Diaw ji laa ji nampal kenn du def saa ndax kaay saani ràññale góor jigéen rek lay jëriñ ci baat soo xamee ne nag góor jigéen rek la jagoo. boo ko xoolee saa yu saami kon nag saa yu saami bi ñu ci def saa bi ñu ci def bu saa yu saami murdi'u mooy jigéen bi nampal murdi'atun mooy faata muy nampal waxtu woowu nampal jigéen waxtu wa nga xam ne ma nga mu doom bu ko nampal te yëngu yëngu bés boobu dana tax mu fàtte lam doon nampal de yooyu jigéen dana wëcc lu mu mbool nit yi daa leen di matal bés boobu de. nee na yooyu moo tax nga ñu bëri ci ci di wax ne docteur boobu ñuy wax jihaad moom lay door maanaam jihaad sëmb ak nampal jihaad ñoo leen la ñu ne yooyu ndax yàlla bu ñu dekkal jaam yi bu nekk nam te woon la koy dekkale ñu ñun su dee rek mu ngi yomb ñu dekk dafay yomb su fekkee dafa di yàlla mu ngay nampal ñu dekk dafay nampal waaye nag ñu ñëw lépp yàlla nag moom jigéen te mu ngi yomb wala man doon nampal ñu saa la jël naa saa mu saa la doon nampal ñu saa la jël naa saa mu na mu mu mu wasara bi saa la naa la ñu nekk kaara ñu ngi lay mën di ñu saa la wa ma ma dëkk ñoom saa la ñu lay mën di naan la te gis nga jëm yàlla ñëpp dañoo ci toll nañu pour nampal la lu mën di te teg naa ko te ñu saa la ci mag jëm moo leen nandal waaw ñoom ñëpp ñu tagoo seen xel de sangara soo ko mën ba man lay fàttali fàttali ñu daal di jógee itam tamit doomu aadama ñu doon fàttali naan dem dem ba koo ji bu mu ne dafa man te man ñu ngi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu jàngale ay ci ci saxaaba yi ne leen ci saxaaba yi doon xam ngeen kañ la mooy ba nga xamee ne yàlla na ne aadama dafa ñëw ñu naan la ñu naan la yow sama borom. mu ne ko génneel li nga xam sax waa ji sax doon. mu ne ko jinne bu nekk jox ma ci juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñeent ak juróom-ñeent ñu dem safara. jinne bu nekk kenn ku yemal yàlla. ba nga xam ne yàlla waxee loolu Adama sa doomu Adama yëpp a ngi taxaw. foofa la yow ñu ngi naan su nekk su nekk ndax nag ñu dafa màndi te màndiwul ñu ngi doon mos ma la déggee. foofu la doon ko waxee sallallahu alayhi wa sallam saaba yëpp dañoo ko am a jooy bu bët kenn te di traçait te saaba yi nga waroon ba bët te kenn jógul fa nga toog ku nekk nga boobu waaw di jooy rek kay de tey ñu ngi ci jëm su fekkee ji mu bëri dana gërëmal jàll. waaw kooku seen sang war a doon ñun toog na gën leen yaa ngi jiite nit yoo xam ne nag gën leen su la xew safara bi di génne de yaa jooju ak maa jooju ndax kenn ci yéen juróom ñeent téeméer ak juróom ñeent juróom ñeent yaa jooju ak maa jooju dégg ngeen ndax mu nekk yéen sama xeet ci biir bi ñu demal dana dana dana dana ñu def ñu ne ko waaw mu ne su ñu nekkee kenn wala ñu demal kenn nag ñu ne ko comme ñu def ñu ne ñu ne ci biir bi ñu demal kenn ñu ne ko ñu ne ñu sax am ñu àgg ci sax ñu ne gis daal kenn ñu ne dëgg leen ñu ne ñu nag ci kay ci ci ñu kenn kawar bu rafet ci man jaar na ci daara ba kay reer men kooku ko waxal wàcc na ci naqar yi ma aar loolu bay tax yonent la woon yonent jàng alxuraan moom mu indi téere yi xabaar yi ñu bokk sa ñu naa leen moo indi leen xabaar bu mel ni Muhammad indi saarool sama xabaar yi sax gën a rafet xabaar yi Muhammad buur ne wa mina naasi ay nekk la ci nit mu ne jaaduñu ko dana mu daggee si laay si alal la xëy na ñu ngi xam-xam ñu daggee am benn xam-xam loolu wane na daggee ci xam-xam moom lu ñu yoonam la daggee te amuloo xam-xam moom la ñuy bay ñu naan malaaka yi doom yàlla lañ ndax malaaka yi ay jigéen lañ te gis ñu ko war a defee baay lu may yàlla alxuraan ñu ne nari maamu jëkk yële fekk ñu naan amul suñ dee rek dañuy soppeeku suuf. waaye xam nga wax amul sax ku nekk baal yi yëpp say saa yi man de ñu ngi si daal ñu fekk yéen a de te waaw gàncax gi moomu gàncax googu du ca topp lu mooy saytaane su fekk yéen a de ci biir ci boppam farataale ma affaire ma Aliou waxal ko am na woon naka moom man taw naaw ko topp na mu ko fa am na woon naka moom ñu dundoo dana mu réeral ko waaye ak yi itam moo ko jaaxal bi fay yëngu mu gën a fayal rek. da ngay topp li nga xam ne yàlla xamal na ne képp ku ko topp yàlla moom ak yéen a amee jëm safara. yaa ayyuhan naasu yéen ngeen in kuntum dem ne baasi ci gàcce. tey naa la dama xaramaakum bi ñu naan leen. Quraan bi nag ñu ngi dugal. yaa ngi indi nag. gàttali gàcce. tey gannaaw bu nit dee ba nekk yàq yu sunu kenn mënatu ko dekkal ba mu nekk nit kuy dund yàlla ne yéen ñi ci suuf def yi maa ngi leen bind ngeen bàyyi ko ci suuf de ndax aadama ay seen bàyyi ci suuf lañ lañ ko jëlee ci ko suuf rek la yàlla ci bëlu ne ko nekkal di aadama mu daal di nekk ci doomu aadama ñu ngi bindee te aadama moomu yéen ñëpp moo leen jur. ndax ka mën loolu mën da lekkal ku dee ba soppeeku suuf bi nga xam ne Adama ci suuf na ñu ñëpp ci suuf lañ wala nit ku nekk itam ci suuf la ko yàlla jëlee ndax doomu Adama yi ci def ñu ngi bàyyi ko ci ndoxam maniyu maniyu góor daal maniyu jigéen de maniyu bi ñu ngi bàyyi ko ci wa ñam waa ngi bàyyi ko yàlla gàncax ga gàncax ga ñu bàyyi ko ci suuf rek wala yéen ñëpp suufay seen cosaan ñu mën a bindu doomu aadama mu bàyyi ko ci loxoom ma ñuy bindu ci xante ñëw léegi te bindu ko mu di góor wala mu di jigéen kooku rek yàq bu nu yàqal ko rek moom it ñu bët ñu topp ñu bindu leen ngeen tukkee ci loxoom ma ñuy Adama moom ci suuf si lañ ko bindoon yéen nag ñu jël leen ci ndoxam maniw de ndoxam maniw xam nga ndox rek la ndox mu mu xeebu sax mu mu wax naa la xatin topp ci kër de ndox moomu soo xamee ne waxtaan nañ ko bëyeem jigéen je tam sax ak kii sax sax yàlla fa sax yaa ngi leen di leer dafay mujj waaye soppeeku aw lumb de lumbu deret lumbu deret xam nga ne wute nag ndox de woon de ndoxam man yi nam meloon léegi mu mujj lumbu deret soo mel mu xasin ci sopp mu tudde suuf soo gannaaw ga lumbu woo nekk doole bi yàpp bu xam nga xas mu muy matal bindam waxee mu xalaxatin ak du ak wudum wun ma dal bindam de binde ñu ne ñaar lañu ñu dañ leen bind bind bu mat ñu ñu bind leen bind bu wàññeeku rek moo tax ñu tuddi ñuy gàtt ñu tuddi ñuy rëy wala mu xalaxatin luñ bind waxee mu xalaxatin ak lu luñ bind luñ bind li mooy li nga xam ne mat na doom jafe ba juddu li nga xam ne lu luñ bind mooy gis bi nga xam suur na sax xam ne léegi mu matu dëkk suñu béy nañu nañu bideel la comme ñu ngi leen suñu matu kattan yàlla doomu aadama ko fi woowu fi mu wan leen ne moom dara nga tëru ko rek te mën a jël loxo maniw soppi ko lumb danaa ko mu soppi ko suuf danaa ko mu dund ko muy doomu aadama kooku mën naa dekkal ku dee rek kon mu mu saxal nag dina maanaam ci yow maanaam saawa nu mu soob yaa ngi leen di ku am yàlla dana saxal ci yow man ci lu ko soob te ci waxtu la nga xam ne moom la ko tuddal de mooy waxtu génnam de jigéen ju nekk ruuxam yàlla na ko wax ci malaaka malaaka moom masaayi na ma ngay ñaan yaa rabbi nutfatan yaa rabbi nutfatan yàlla may ma toqante yàlla may ma toqante yàlla bëggee nangu ñaanam booloo ba am lu may bu yàlla bëggee nangu ñaanam ñaan ak malaaka ma mu daldi rafetal jigéen ji te ba ci góor ga rafetal góor ga te ba ci jigéen ji ñu daldi jegeñante de suñ booloo xee te wàcce man yu malaaka ma te man yu we mais yow yàlla ndax dañ ci bind nit ñëpp am doo ci bind nit ñëpp su fekkee ne du ma ci bind nit ñëpp wàcc ko rek moom man mii dafay génn ruum nga du ko wall wala mu ne ko danaa ci bind bindee mu ne ko danaa ci bind bindee nag mu téye ko ne ko dafay tefe am dafay tefeat dafay bëri wërsëg am dafay ñëw wërsëg dafay gudd fan am dafay gàtt fan lépp yàlla xamal ko ko mu seet ci lawin ma fos na fanam day ne wërsëgam day waaw yëpp nag mu su ko defee mu daal di ko booleel waaw loxo màññi ma ak fa nga xam ne bu dee fu ñu koy suul ñu sax ci suuf te fa nga xam ne fa lañ koy roobeel la booleel loxo màññi ma ma te daal ko jëm ci dem day jël su ko defee rek yéeg a soog a jënd weer soog a jënd weer rek su fekkee ni doom jooju fa soona mat mu dund ba ci juróom benn weer ya mu wasin ko wala ba ci juróom ñeenti weer ya wala ba ci ñeneen at dañ koy dañ koy ñëw daawam demul. mooy juróom benn weer jigéen soo amee juróom benn weer mën naa am wasi te doom ja baax juróom ñaar noonu juróom ñett juróom ñenant mooy li gën a bari mën naa wéy nag ba ci ñeenti at mooy dayob njëmut wala juróomi at juróomi at njëmut dana ko am ci dem dayam soo juddu bu fekkee ni loolu am na nag su ma la ko jikum topp lu gën a leen tiflal li mu leen di ndaw gannaaw bu di dem demul ma àggee nag ñu ñu wasin ko moom doom jële muy gone bu ndaw maa ngi tablu ko topp nu dundal leen ba ngeen jot ak dundal leen moom man ñu moom ñu doon waxtaane gannaaw la yàlla di ko jox kattan muy màcc di màcc di màcc di màcc daa am ñett fukki at nag yoo xam wala ma am ñeent fukki at de ومن كم أجنك لكي من توفى قد يفنى طاقته ومن كم أجنك لكي وكما مدى لو كنت أعطي المؤمن لكي بشي تلك تغني جملة أما يوقعنا danañ denc ndaw am ñoo xam ne danañ denc seen waxtu kattan am na ñoo xam ne danañ dund baax di dund ba gën a doole magal ba kooku kenn naa waaw ñu ko la deewee di ko alama gis mu xam ci suñ baale yéen ñu ngi gën a xam xam sa yam ndaw rek dund bu bon nag mooy mu dund ba naan nag nga xam ne ndaw xamam yëpp dootu ko xam ci mën a jël ndoxam maniw def ko muy ab niir niir boobu di màgg day kone di màgg day waxambaane di màgg day mayam rus gannaaw ga mu dellu xaar di ko teeku di ko teeku ba nekk màggat mu ko doon naat dootu xam dara yàlla sa kooray nga mën a def loolu jàkkal ko dee sa fu ko def loolu la yàlla wane toujours mandargam dëkk bi ñu ko fekk doomu aadama noonu la koy jàllale aata gannaaw mu gannaaw mu jeexee rek ñu def doomu aadama nag yàlla wane na ci kàttanam wane boo xam ne ku gëmul rek da ngaa da ngaa fi ma xale wala nga tëb wala yàlla na ma ci yow te xeer rek rek waale. ñu doom ci soxla diggante ñaari wàcc itam ñaari wàcc ñu sax jëluñ ko dañ ci dugg ci ndaw amul dara mënul dara yàlla di ko yar wala yi mag ñaari wàcc itam yëguñ ci dara rek ay di waxambaane rek ay di mbañam ruus rek ay màgg néew doole loole jamono moom yëpp xamul kañ la góoteeku ba jëm xam ngeen ne xamul loolu mën naa lekkal ku dee rek benn lekk la góob ba taraa ci saa lay lor la suuf xaaral yoo xam ne yaa ngi wow naka noonu ci man la ne yàlla mën naa lekkal ku dee suuf si da nga ko gis mu wow noor. yaa am sax naa ne wàcce na ala ñoo am ma ab taw ñu gasal ñu yëngatu war a bas tam forti waa am ba sax tam saxal min kulli taw bi yëpp a teel béy bi oubien yëpp nga gis suuf si waaw koŋŋ doo ko gis lu may asamaan si suñu def daal ñu ne wis ko taw ñu si tooy kàpp balaa ñu am ñetti fan nga gis mu suuf si forti ku nekk gàncax gi nga génn gàncax boobu ñu màgg ba rafet ñu def lool gannaaw ba mu yëngu. woowaat daal di fàttali foofu ñu ngi mucc woon nag daal di gënoon a mucc lool yàlla naa li ma koy yàlla woo ma la moom mooy mooy aji fàq waaw loolu moom ñu ngi gën a ubbi moo ko waral jërëjëf. soo gisee yàlla bi taw suuf soo si mujj tooy génne gàncax gannaaw la mu dellu woowaat kooku yàlla daf leen di wan ne mën ku dee rek nga mën suuf. ba génne ci gàncax gannaaw bu mu woowoon kooku mën naa dekkal ku dee rek waa naroon naka moom xabirun te yàlla mën na lépp lépp saa ma tàngoor toujours ñu yem ci liggéeyam bi lu may fa xamal leen lu wéetal yàlla ak xam ak yàlla rek waa ak alaakara wala xam ne loolu sax na ci xol yi way jëm ña dañ ko doy yaakaar yi waa na saa baal na ko bés tey jii àgg ngeen xam ne yàlla mu mujj indi ceebo dana indi bés dañ ci yàlla mu sukkale waaw man waaye nag yàlla yow su mu nekk ak man ku góor ñu nekk ci ba mel ni yàlla mi gàttal gañ wax ci gannaaw bu mu waxoon loolu gàttal ñu nekk ci ba mel ni comme na maa fi àgg nag wala jaay lu fi laay kooku lu ko war a wàcc na jaar yi jaar daa tàggee jaar xoolal de mu ne wala naa fi àgg nag la ci lenn nit. man mii jaajëf lu ko doon mu tàggee bi laay ci yàlla dafa jaajëf ci xam-xam wala wala lu jaajëf ñu mu ànd ak moom wala ci kare bi jaajëf ci ñu ci yàlla bu bëri. saa ne ci nit mu àgg ndem njabam nga. abu jaajëf man jaam ñu ngi tàggee ci yàlla saa mu xam-xam am téere téere ñu ko bokk ci yàlla dafay ci ci ko bokk ci mu leen dàngal. yéen a ngi may xaw naa yàqal suuf abu jaajëf ñoom ñoo ñu ko. noonu laa dëkkee def kooku ñu nag ma ngi leen di ci kër gi. ñu ngi leen di ñoom réeram yi ñu am sax ñu daa war a jiw yàlla. ñu réeram yi dara war na ci moom ñu doon yaa jaatuma ci suñu toroxte dana torox ci àddina de rey nañ ko keroog badar rek wala mu ko wutal du mot a door yow ma koy am ci pencam yàlla wala wala xarit bu mu doon doon kër. te terewul bu bàyyi am dara ci pencam yàlla danañ ko dugal safara wax ko de waaye ci la. soo ko nag safara maa xam dama nit nag gisal na ko yàlla ak yaare la ko soxla safara woowu mu yàlla kanam sa yow amoo jaar da nga ba xamoon ci bàkkaar moo ko waral rek loxo la tudd ndax dañuy gën a bëri ci li jaar loxo koy def. waaw laa naka yàlla day def sa laa leen jënd borom ak tooñ jaam bi ñu jaam de yàlla du tooñ benn jaam dañ ko bëgg a bàkkaar de. wa mina naasi man ya'budu alaa arshin kooku ko waral wàcc na ci wàcc na ci lenn yi lenn yi aaram dañ daa wax ne waaye nañu seet yi diine moom ak yëpp jeex ba xam lu ñëwee feeñal ak jëbbalu ne jëbbalu nañ seet ndax diine ji dinañu ci gëm jeex suñu jëbbaloo ku ci jëbbalu sa sa wajan wasin sa wajan jur doom jigéen muy wajan taw naaj bi doom ji jigéen sa jabar ji doom ji góor ah man ji ne man ji ne ma dootuma ko bàyyi ji ne baax na ci man ji jëbbal na sa wajam ji góor taw naaj ji góor sa jabar ji jigéen daanaka ji ne man dafa gaax ci man ji ne ji dafa maa bàcc daal di muur kër góor ne mu ne naa ne aji na ci leen minute man yaa bëgg ko dana mu jaamu laa yàlla laal am na ñoo xam ne dañuy dugg ci diine te fekk gëmu ñu ne yàlla ci sifata di seet ba xam ci ñu ci meleen déet bayin asaaboo jam jam na ko xayrun ak njët su fekkee yaramam njët na alalam doleefu ismaam na mu xam ci diine yi wayin asaaba du jam jam na ko fitna nam nattu su ko nattu daree nag mu feebar alalam wàññeefu pour Allahu mu soppeeku Allahu ñu yëngu parce que personne bu ñu la jël na wala wala wala kooku personne naa la xeex ñu ne ñu ko jàppee loolu rek ñu ne lañ koy jàpp rek ñu yow jaam nga yàlla mooy sa borom ñu ne ñu mooy dina yàlla la ci ci yàlla bu neexee nga nekk jëf ma xale yi tam nga nekk jëf waaye suñu seet ñu ne ñu ndax daf lay ñu la xamlam dafay wàññi sa alal kooku personne ay yëpp ñu ne ñu ko seetee loolu rek. yàlla seetul xaral seetul ko melo ñu ngi seet rek xëy na jaam bi ak jëfi jaam bi ku sa ku sa xëy na sell sa jëf rafet kookaay jaamu yàlla ba nga xam ne mu rëy fa yàlla de moo am daraja fa yàlla buye boo amaaral buye boo ñàkkaaral koo xam nag ne loolu nekkul ci yow soo amoon ak naa ngi ci jiite nag yàlla faale wala yaay saaral de saa yu tëralee woo ma ko soxla mu ma di perte mu gënu gëdaa jibi yàlla moom dana mu jaamu mu doon laay doon yàlla ci jaamu këram maanaam yàlla looloo loolu la ci mu ko su ko jaamu su ko jaamuwul wa maanaam yàlla faaw te jëriñ ci mu ko su ko jaamoo de këram moom soo ko jaamu moom du la jëriñ soo ko jaamuwul moom daa wàññi dara moo jaa ko fu ko nit jaamu ja kuy jaamu kay na jaamu yàlla mi nga xam ne soo ko jaamoo mu ja mu jëriñ la soo ko moyee mu kutu sa nit waaye këram bi nga xam ne dara la mën a mooy jaamu lu tax ko jaamu daal di seetlu ne moom xawaram moo ñu leer ak bayat bi daal di seetlu dëgg de yàlla moom dana mu jaamu lamal ko war ko xawaram ak xaw ma gën a jege ne ma fay njëriñam de day faral ngay jaamu xërëm jaamu xërëm lor sax la gën a jege ci njëriñ mën la jëriñ mën la lor waaye suñ seetee lor la gën a jë lor la gën a jege te di ko bon al Maodo yàlla jëndam këram la wala di ko bon ala si waaw xam nga jëndam këram la. inna baaraama ca yàlla yëkkënu dara mu xarala àll ci la ñu ànd aadama gëm nañu waaw nga koy jëf àll ci wala fa ak naafile ñi nga xam ne gëm nañu yàlla nag koy jëf farata ak naafile ñooñu yàlla dama leen xarala janaat ñu sooroon kàcc nañu yàlla dana daw. ñun saa fi àgg si yàlla naa war a yoon bi yàlla na mooy yaqal sa nit yi dafa rafet sa ay sa ala dina baal ak yàlla yaqal sa mu def maa yële ñu mu namm yàlla lu mu namm rek loolu lay def muy sàrra ko ko topp te dama dal ko ko mooy de man kaana ko nekk na mu yow mu ja yow mu ji loolu yow mu ji jaasu ànd ak am di leen nit ak ñoom ko loolu laa dugg ci yàlla Muhammad ci lu yaa jaar na wala ak yàlla ak la. koo xam ne yaa ngi seen ci yàlla wàcc yonent yàlla Muhammad dañ ko dimbale kon yam dug nam kàllal di sabab yi ci buum nga soxla yi dem ci asamaan su man yaa xaaxaf mu dog buum nga kon yam dug namu teer hadis bi bana naa dana demee kay loolu pexeem mu waa maay maay hadis dana mer loo ko def bu bëgg yàlla wàcc yonent bi dañ ko dimbale ba nga am te sa sago doo am lu la neex mukk dara nga xam ne mën ngaa am loolu neex ci bu fekkee da ngaa jël buum yëpp ba ca kaw sa loolam ne teew nga dagg ko daanu ci loolu su fekkee ne doo jëlee bànneex ci loolu doo jëlee bànneex mukk ci yaakaar nañ yàlla dana wàcc yeneen sa bile lii benn bànneex amu ci teew sa bopp ba buum nga nga dee ak mar bu fekkee loolu du maye bànneex nawet yàlla jox yàlla wàcc yonent bi ba nga am sa bànneex ci moom la mel de kasaalika kam wasal bu ñu wasal ay daw yoon am sol naa danu wasal ko moom bi def ayaat yi mu kaw seen benn at yi ñu ngi jiite waaw nag yàlla yaa jiite na mu jubal man yéen a ko mun a mën jubalam de. na des na naka ñaaxa amanoo gëm nañu gis ñaaxoo wala des na ak ñaaxa aadoo yahood nañu yahood yaa ngorob wa saabina saabina ya kuréel la ñuy naata diggante yahood ak nasaraan bi wax ne saaraat wa nasara ak nasara yi ci seen bopp ak tubaab yi wal majjoos ak majjoos ak majjoos yi waa jaamu kat xeremu yi wala des na ñaaxa asra ko bokkaale na nga añu sàkkal yàlla bokkaale inna allah naka yàlla yaxtinu dana fasale bay noonu jëf seen yoonu kaamam jëf seen yoonu yàlla de ñoom ñëpp yàlla dana fasale seen diggante ëllëg mooy ñu gëm yàlla mu yóbbu leen aljanna ñu ci def ñëpp man nga leen yóbbu safara de inna allah naka yàlla te ñu aji xam dama maa ràcc nañ ñu ci lépp lépp de te lépp lu mas a def nag yàlla xam na ko ku ne dana ko fay jëfam de alam tara na xam nga amma maa naka yàlla yëpp dina si jóor loolu ñëw ko man ci suwaraat ñu nekk ci asamaan juróom-ñaar man ci dara daal ñu nekk ci juróom-ñaar xanaa xamuñu ne yàlla mboolem mbindeef ñëpp dañ koy ci jootal malaaka yi ci kaw asamaan ak malaaka yi ci suuf ñëpp dañuy ci jootal yàlla ba soom soom jant bi jant bi dafay ci jootal yàlla wal qamar wal weer jant bi ak weer bi ñoo leen gën a rëy ñoo leen gën a xool waaye ñoom dañuy ci jootal borom bi wala juróom-ñi. yëpp dañuy digloo yàlla wala jibaalo doj yi doj yi itam dañuy digloo yàlla rek wala sañaroo garab yi garab yëpp dañuy digloo yàlla seen seen lañu waaw muy digloo seen suba yàlla moo ñàkk ñu diglu soow waaw wala ñu ngi seen yoon yëpp dañuy digloo seen borom kon damaa boog daaba yi daaba yëpp nag dañuy digloo ñun ñii te am na ñu bëri ñoo xam ne dañuy jëndal seen borom ñu ñëpp de boo kat yu ay bëri ci ñoom ak war naa leen ci moom ala taw bi mu de waaye ñu bëri ci ñu nag mu ngi war a ci ñoom de mooy ñu bañ a si jóol de gis nga mboolem bindee bi yëpp nangu na ñoo si jóotal yàlla asamaan ak suuf jant bi weer weer bi ak daa bay ak garab yi nit ñi nag am na ñu nangoo ci jotal yàlla mooy ñu gëm yàlla ñu bari nag tëtt nañ waaye mbugal mbugal ak laaj nga xaar ñoom ñëpp dañ leen mbugal gis nga ñu tëdd ne ñoom rek kay wedd yàlla ñoom rek kay mooy yàlla bindee ci yëpp nangu nañu li yàlla digal nangu nañu li yàlla digal ñoom ñëpp xamatu nañu ñaan yàlla te ñëpp gëm nañu yàlla mboolem bindee yëpp itam gëm nañu yonent am nañu yonent muy jiw bi muy jamaat bi muy bàyyi may ci doomu aadama rek la ñuy gisee ku wéddi yonent sallallahu wa sallam naka sama xalifa yàlla daa iman bindee yëpp dañuy jaayante moom loolu gis suñ ko weddee lu mooy ci nit ñi nit ñi nag gën a néew ñooy ñu gëm yàlla ñi gën a bari ñëpp dañoo wedd yàlla sabab safara yi ci doon tànk jinne bu nekk kenn ci dem aljanna juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ñëpp ay xéefar lañ wala yéefar yi ñoo gën a bëri fuuf jullit yi adduna si juróom-ñaari ay wàll lañ liñ dë liñ dëkkee ci suuf moo gën a ñoru bon suuf lañ dëkkee ñoru bon ñu doon ñu ci gën a bëri ay yéefar lañ ñu néew ci di jullit jullit yi itam ñu ci gën a bëri dañoo sos yi ñu leen génne ci diine ñu néewaaw ci sunna ñun sunna itam ñu néew ci sellal yonent na ne ñëpp xalaku nañ lu mooy ñu am xam-xam ña am xam-xam ñëpp xalaku nañ lu mooy ñu jëfi seen xam-xam ñu jëfi seen xam-xam ñëpp xalaku nañ lu mooy ñu sellal ñaar kon nag ñi gëm yàlla ñoo gën a néew ñu ñi ko matu ci ñi gëm yàlla gën a néew yàlla wax na ne walaw sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an su ko neexoon ñëpp gëm waaye loolu loolu neexu ko soogut loolu wala yasaaruna muxtalifina wax na ci jeneen laay na duñ dañ di xuute mukk ñoom bindee yi ñuy gëm ñi weddi wali saalika xalaqahum ne loolu tax sax mu bind leen loolu nag ndax cëd yàlla cëdd bindee yi dafa emut te su ñëpp bokkoon gëmandoo ñëpp bokk ak yoon bi bon cëd yi dañuy yemoo te yàlla dogaloon na ci afal ne dafay gënale diggante kër yi moo tax de ñu gëm yàlla ñoo gën a néew ñu gëm yàlla itam ñu ci yàlla ñoo gën a néew mais hikmat ci loolu yàlla dafa bëgg a wone ak doyloom yàlla amul soxla ci mbindeef yi amul soxla ci jaamu bu ñu koy jaaral yëpp te mu iblis bu bon koy ci teraanga yàlla ja dara yëpp juboon ba mel ni yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam koy du yokk ci teraanga yàlla ja moom doy na ay njileef doy na wali sa ci ak jàmm kon nag ñu teewoo ñu ko gën a bëri mu mel ni dafa dafa bëri lu gën a ne sàmm nañu ñu néew rek ñoo ko gëm loolu tax ñu néew ñu gëm yàlla ba mu wane teraangay jiw ñi ak seen xoraay lépp boo xamee matale na ñëpp mën nañ ko am rek kenn dootu ko fonk lépp balaa ñu ko balaa caa ñaa xëccoo. ba tax a xamee ne dafa jafe ba ñam rek saam ñi nga xamee ne ak ñi ñëw yëpp ak ñi ñëw doole ñu jullit gaa dina fi ñoo gën a ñëw ñu du jullit te ñoo gën a ñëw doole itam waaye ak ñi seen noon yi bari bari bari bari yàlla ngeen wattu ci seen biir mën a duñ dara seen noon mën a duñ dara wattu jullit ñi ànd ak seen ak néew ak bëri yéefar yi lottalul yàlla loolu la yàlla wane moo tax mu jëndeel ñii ñu néew ne ci lu ci biir noonu yi te yaa ngi am ni mën nañu leen tus ragaluñu leen sax par faaluñu leen loolu moo tax gëm yàlla gën a néew ci nit ñi dàqwante wu nag lam waxoon ne kataba ala nafsi rahmata yonent na yàlla wax na ne sabaqat rahmati ghadabi yàlla na ne yërmandeem jiitu na mbugalam ba yërmande yi nga xam ne yërmande ji moo ëpp ñoom yërmande ñoo gënoon a war a bëri lu tax nag bon ji ñu gën a néew loolu moo wax gën a néewal jullit ñi ñu def diine rek la ñu am dañuy ñëw ba naan pour pour diine yàlla waaye mboolem asamaan juróom-ñaar ak xarafa kursi ak bayti maamuur ak mustawa ak saray bëtt mi di aljanna yi ci aljanna ak wóorul yi ñooñu kay ñoo gën a bëri fuuf Adama ak li mu jub kon nag suñ seetee xam ne yërmande yàlla ji moo ëpp fuuf wan yërmande ji moo ëpp fuuf waaye ci nit ñi daal moo gën a néew nit ñi taxe laar ñoo gën a néew waaye nag mbindeef ñi taxe ñoo gën a bari mboolem doomu adama yëpp suñ dajee asakay jinne yi rek lañ jinne yëpp ak doomu adama yi suñ dajee asakay malaaka yi ci suuf rek lañ malaaka yi ci suuf ak jinne doomu aadama yi asakay malaaka yi ci asamaan yi dëkk la de dana dama koy jeexal asamaan yi muy asakay malaaka yi ci bayti maamuur loolu di asakay malaaka yi ci benn lool ci lool yi xaras te xaras am na juróom benn téeméeri jinne ci lool kon nag jinne yi Yàlla yërëm kay ñoo gën a bari fuuf waaye daal ci doomu aadama moom ñu ngi yërëm ñoo gën a ñaaw rek waman yii di laaw ko taxawaay na ko yàlla comment loolu day ñaaw ba muy mukk ñu naan ñu taxawaay ku yàlla na ma ci moom taxawaay di nag kenn mën da tax mu taxawaay rek dina laaw na ko yàlla yàlla dina mu def ma ay saa wala mu soob te yàlla lu ko soob lay def jaam bu ko neex mu taxawaayil ko jaam bu ko neex mu taxawal ko rek ah saa ni xas maa ne xas moo fi rabbiim wàcc na ca lii ba woon ca Badar dara xalaat ba lool jaatam ñaaral ma ba yonent gàddaay dem Madina ba jaatam ñaaral ma ca daje Quraysh ca Badar ñu xeex xale bi yonent jësat génn xale yi mu woo yonent génn ci ñetti téeméer ak fukk ak ñett Quraysh ñëw ci junne ñetti téeméer ak fukk ak ñett yoo xam ne juróom-ñetti jaasi rek lañu am ci gànnaay ak yaare fas ak juróom benn mbubbi koom di gàtt di jàkkaarloo jinne boo xam ne ñoom ñu ngi seen bu doyal seen i gànnaay ba ñu ak Waliid ak Saybatu ñooy wayte Makka daal di ñëw ne albiraasa noonu lay aram kuy sama kam nañu a xeex ak man ñu ñëw ne ñu ngi yoo suñu kam yi ñoo ak ñun Muaaz ak Muawid doomi Abraha yoo xam baax lañu bokk ci Ansaar dal leen dogaloon ne leen ñun ñu ne xeex ak yéen ñu ne ku ngeen bokk ñu ne Ansaar ñu ne kufur ay nawle ngeen de waaye ñun daañu leen suñu nawle yéen ñu laajee suñu doomi baay yéen lañ bëgg bëgg bëgg a daje tey wa sallam ne wax nañ dëgg ana Ali ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib ana Hamza ibn Abdul Muttalib ana Abu Ubayda ibn Harith ibn Abdul Muttalib ñu daal di taxaw mu ne leen ñun yéen a ñu war a xam ngeen ko ñu daal di génn dem daje ñàkk ñooñu ñaañu léew bi jëkk a xew ci diine yàlla ji ibn Harith daal di rey Shaybat ci taxawaay Hamza du rey Walid ci taxawaay Utba nag diggante mooy Abu Ubayda ibn Harith seen jaasi mu mu tënse ñu ñu jam Abu Ubayda ibn Harith mu daanoo tànkam dëmb Sidina Ali yow Sidina Hamzatu ñëw jàkkali waayam ja nee na ko indi dara ko fi yonent ñaari ñaari jéego yooyu la yàlla wax naa xarafaani ñu ne ñaar asmaa ñaari xurwaale lañ ñu gëm yàlla ñu yedd yàlla parce que mu xooloon nañu dara ci borom kër ñu lay xooloo ci seen ne borom de ñu kuré ñu gëm yàlla di wax ne jëm ci yow la yàlla ñu yedd leen de wala si la ñu naan ak safara dinañu xute am loolu yow na loolu ñu leen si yow ni ma la am ñu naa leen ci safara de yéefare nag yàlla dogal na leen tàngaay yi safara ba ñu ne bare na ñëw ci safara ñu ko mu dem na sotti ñu ndox ko wala ci ñu ko ñu bopp ci am koom ñu bopp ci am am mu ndoxam ñu gëde ndoxam ñu duma ci jaanoo dañu sotti ci seen bopp ya ñu ko def na yéen ñu ci moom am bu ko ñu mën a di jënd ñu leen sotti ndox mu tàng ma ci digg bopp rajo garab gi ci seen ji yëpp daal di yaay fas yëngu ñu ko def wala gunóor bi daal di wax ka jëlee wala mu ñaan la leen maqaama ay boole bi naan ñu gëj leen di ñëw malaaka yi ñu leen dóor boole leen di ñëw ci bopp rek na ku la ma waadoo def bu ñu nam ne ñu yow doo ñu gën a ñaar di ko safara ñun xam nañu di jàppale mooy doo delloo delloo di laaj safara suñ gisee ñu safara ba ñu am di lakk safara dañuy daw di daw di daw di daw di daw di daw di daw ba jege buntu safara defe naa daañu jëndee su ko defee malaaka yi góor leen wala ñu mu raab ba ca kooku ko soxla ñu dawal ci jëm ci kaw ñu dóoraat ba ñu jënd ñu raab mu raab de noonu la ñuy defee daay man. ñoo leen ko xaw ma seen asaawal aaree fi mu ko dem lakk de mos leen ko noonu la ñuy dañuy lakk ci sa borom ngeen weddee yàlla ngeen weddi ko. inna mbaa naka yàlla ñu seen zone mu xarfe àll ci ñaar ñaar amoon gëm nañu. waaw yow dañu jëm faale ati farat waaye maa ngi leen jëmaat ñu tool taj bi yéen a daw man saa maa rek dañu yàlla tëddee bu tuddee mbugal mbokk mu tudd yërmaane ndax xaw foog rek jaaw ñoom ñaar dañoo war di préféré ci xol xolab jullit ñu tànn mu ragal boromam ñu tànn mu yaakaar ko mbugal nag ba nga ragal mbokk mu tudd te yow nga yaakaar yoo xam ne dafa takkal leen si ay si ak saa bu ñu ci gis ñun wala wala wala wala wala ñoom ñooñu ak jamono dañu leen di takkal takk ay wurus de moo tax ñu aaye ko fii ci àddina góor bu ko takkoo ci àddina bu ko takkoo ci àllaaxira rek wala baax moomu ko daay seen yaa ci ak jamono ay wow doo jubaleef leen ci àdduna ci la fayu ñu jëm ci aji tey jëm ñoom aw ñu wax yàlla leen jubal fii ci àdduna ñu wax baat bu tey la baat ba moo di la laa ilaaha illallaah muhammadu rasuulullaah wow doo jubaleef na leen ilaa siraatil hamiid jëm ci yoon wa ñu sant mu jëm de yàlla xawale na leen yoon wa xam ne moom la ñuy sant de mooy diine yàlla inna lladiina kafaroo wéyal si doon te ñuy sànni ñu naan sànni laay ñëwee yàlla ji wal na fi biir ak wéy jàkka yàlla ah, xaram ah, ngeen ñu normal ñi nga xam ne dañoo wéy yàlla tey sëñ bi ñu wéy masjid xaram bi ay ah, ñu nga makka. li ci jàkka ji nga xam ne jaar naa ko def nañ ko mu di jaamu waaye naa si ñeen ñi jàkka ji nga xam ne man yàlla maa leen ko defal muy seen. jaamuwaay boo xam ne fa ngeen di jaamoo ñu seen borom sawaw na ak yéen moo la alaaki foo añu sox si ci moom wal baadi aju rot te gan ak dëkk ñoo ca am képp makka benn buur na fu ko moom te benn buur du ko moom mukk gan gu fa si tey moo fay seulement atte réew ma ñoo ca am wa man yurid ko na mën a mu ci ñii ci makka bii la haadin ci ci néeg ba bii la haadin ci jàng bi sunnin ci sabab si tooñ donc ko nu masal ko mu na sabin bu wala añu wula añu te képp ku fa bëgg a jàng yàlla dina la mosal mbugal mu mbugal mu métti de te mooy safara de wax pour jàngat ba waana ba nu wàccee ba waana ba nu digalee Ibrahima ñeel Ibrahima makaama bañ ci barabam ne bëre jàngatal ba nga xamee ne yàlla wàcce na yonent yàlla Ibrahima ca Makka defal ko ko muy këram wala digalal na ko barab ba nga xam ne fa la kaaba fa la fa la fa lañ ko sant na fa tabax kaaba ga kaaba bi malaaka yi ko jëkk a tabax ñii doj ci demb lañu ñu ak loolu ba nga xamee ne bàyyi tuufaan ñëw na ci jamono yonent yàlla nooy nag ñu yëkkati ko malaaka yi yëkkati kaaba ga mu mu dem sa ci bay ci maamoor ñu fi amatut kaaba ba ci jamono yonent yàlla Ibrahima yonent yàlla Ibrahima nag boromam digal ko ne ko na dem ta wax Kaaba ga de ci say gàddaay Ibrahima jógee Iraq ñëw Palestine ak ba nga xamee ne buur ba rogando woon na ko bëgg a jël jabaram Saarata da yàlla wattu Saarata ca buur ba de buur ba mujj indi jëmeer may ko Saarata jëmeer ba mooy Hajara Saarata nag ñëw na yonent yàlla Ibrahima jëkkëram boobaa tey ñu ngi sey daamuñ doom jëmeer bi jox naa la ba di nga def ko taara ndax nga am ci doom mu taara woo ko jikko Ismaël jëf daf koy fay ci àdduna àllaaxira yëpp yàlla daal di moom itam mu far ëmb gannaaw bu ma amoon juróom-ñeent ci at mu ëmb moom itam Isaaxa wasin ko mooy Isaaxa fekk na Ismaayil doomi Jibeer bi moo ko ko doole bu ñuy fore Ismaayil dóor Isaaxa léegi nag mer ñun ci yéen yàlla Ibrahima ko lii xajoo ma ko ñi nga xam jaam rek la woon doom bu góor sama doom ba gisee loolu daal xajoo ma ko fii daal dootuma dëkk ak moom yéen ci yàlla Ibrahima daal di waar jëri moom toog Hajara ak Ismaila ñëw ba fi nga xam ne fi la Kaaba gi nekk mu wàcc leen fa dem ñu saam Hajara amee doomam dara ko yàlla bënn leen seen ab zam-zam boobu danaa boo xam ne ne naa dee ak ba mu dox diggante Sawara Marwa juróom-ñaari yoon moo tax ba tey ko aje ci Makka dox ko ba sam-sam bënnee ay nit ñëw seen ay picc ñuy léew foofu ñuy jéew foofu ñu ne picc yi day picc ndox lañ te fii day mënuñ fee xam ndox ñu ñëw rek fekk jigéen jeekab ci anam def ñu ne ko ndax bëgg ngay dëkkaloo mu ne waaw lu ngeen am xaq ci teen bi jurhum nga ñëw dëkkal moom nag ba Ismaayila màgg gannaaw ba yàlla yabal yonent yàlla Ibrahima ne ko na dem seeti Ismaayil te digal na ko moom Ismaayil nañ ko wax kaaba gi rek ñu ñëw Ismaayila dem rëbbi wàcc jabaram ca kër ga yonent yàlla Ibrahima ak asalaamaaleykum bàyyi nañ ci jàmm ñu ne ñu génne ko ci jamono ngeen doxali ci lu ngeen nag ne ñu ci musiba ñu wañ ko mu ne am sa jagat mu ne góor gi la bëri nga laajte góor gi ne ko maa ngi dem ñu ne ma ko na ko gënu buntu ne doom yi dëng na lool de na ko soppali Ismaila dellu si ndaw sa fàtte ko bëri guddi mu ne ko man day am góor bu bëri solo ñëwoon na bi lu ne laaj na ma ko na ne wax yóbbal na ma wax ci yow na ne sa jëma bu dina bi dafa dëng nan ko man ko soppali mu ne ko góor gi xamuloo ko mu ne déedéet mu ne ko sama baay la jëma bu dina bu dëng bi xamuloo ko mu ne déedéet mu ne ko yow la daf ne naa la fase fase naa la takk beneen jabar nag yooyu moom baaxoo te te beneen yoon Ibrahima dellusi sama fie noyo salaamaaleykum daw sa daal di ñëw ne góor ñi ak ñi góor ñoo jëfet wàccal wàccal mu ne de du ma wàcc naka saara su ma ko may mu ne sax fa mu ne naka ngeen def mu ne ko ñu ngi ci jàmm duñu jeex ak dara yàqu du jeex taw du jeex ñu ngi ci teew alhamdulilah léegi sama jëkkër dafa génnoon waaye léegi mu wàcc daal di ñëw ndox bi ñu ne bi yàlla Ibrahima tànk bi ko man du ma wàcc maa ngi parce que kër gi nga xam ne ma ko na ko jox ko na ko na ko na ko na ko na ko na ko rokkab bu baax na ko saxal comme que jéem wax ko mu ne ko sama baay la dafa ne naa la jàpp gannaaw ba nag la yonent yàlla Ibrahima dellu si nag fekk si Ismaïla booba Hajara dee na ne ko sama borom daf maa digal dinaa tabax néegam bi ndax danga ma dimbale mu ne ko waaw yéen si yàlla Ibrahima ne yow yàlla yaa may tabax loolu néeg boo xam ne xamu fu fu barabam yàlla daal di yebal aw niir ñu ñëw tolloog ni kaaba gi rek taw ko ba mu tooy tawee suuf ko Ibrahima rek gis ko këram Ismaël Ismaël jox yonent Yàlla Ibrahima Ibrahima tabax te tabax ba mat gis nga ma xam aw daj la woo ne ñetti xasab rek la guddee te tabax bu gudd boobu ci Ibrahima taxaw ba tabax ko bu tabaxaa ba jotatu ba jotatu tabax bi rek dañuy yëkkay ko ba mu jot ka ba mu ba tabax ba. danañ ko soppal noonu ba mu soppalee tabax ba nag yàlla na ko xaw ñu ñëwee nañ ñëwaat sama nekk bi mu ne sama baat nu mën a jëriñ ci xaw a àdduna ci yëpp ak ñi nga xam ne ci doomu ñu fa ma leen di xoolee yàlla na ko xaw a teel xaw a teel rek la war jotal bi man yàlla man la war Ibrahima sax maqaamu Ibrahima teg ko ci kaw jamono ak yëpp béy mooy gën mu réew moom ca gannaaw safara taxaw ne eh, yéen nit ñi yëpp la béykat yi ko ci wàll bu nekk ñu ngi ku ko xoo aji Makka ba waa dina yem ñëpp naa ko la béykat la ku wëy woon mooy ku aji benn ku wëy woon ñaari aji ñaari ku wëy ay yoon yu bëri da nga da nga aji lu ku wëyum doon itam loo ko waaj waaj loo ko bëgg bëgg loo doog doog doog doog naa ak mat moom la koy waxee waa Asine waxtaan si naa fi ñu ngi laaj ci caaj ba mu waxtaan ak ñëpp wëyu ko labbayk allahumma labbayk labbayk googu dañuy fàttali ba tey moo tax bu baax ma ne rek daal di ko waxaat wëyu woon naa la ba Ibrahima woote maa ngi wëyu yeneen yoonu ñaareel. kooku danañ ci tëddee ñu jaaree ñu mu ñu ñu xaaral ci lu baax li am ñu ñu ñëwee waa ci jëpp jërëm bu xoo bu ñu xoolal yaa ci ne danañ gis ñoom jërëm ñu xool ñu ko ñu faj ñu ko ci yëpp yoon xam nga ñu daa ñu koy yëpp. kooku taali la moom jërëm yàlla Ibrahima la yàlla tabax loo kaaba la moo ko tabax moo woote am nañu wax ne jërëm lañ digal moo woote. waa seen digle yow yoroon seen dinaa suñu village bi caaj yoroon si yàlla moom ak tam tonton ko moo ñu caaj de waaw boobu la ñu ci kër yi daal di ñu miir waa Fatou Ba ngeen ak mu ngi gaaw yëpp gërëm di di mu waral yaa ci nekk dana di ci ci ñu fa jëm ci ñu ci la am ci ñu ko ci ko ñu suñ doon tabaxee kër yi doon rot di fa rot ak ban bi nga xam ne daf ko doon ruus yàlla ne ko xoolal ñu yëpp nga tafaare ko jaati Ibrahima Siddi waaw ruusi kat tabaxa Kaaba ga fan ko mu tafaaroo jaati boo xam ne xeeru rëy daloon na fa waaw ñu ngi ko tabax jumaa boo ne ndaw dal na fa parce que dañu ne yenn romp dal na ko bokk ca suuf si saa wala bu doon ab jiwu bu jiwu ba jiwu jot ci àll su ma mu julli ba sax ndax bu dëgg dañ ko julli boo xam ne ndax lu bokk ca saa wala dal ko woon kenn mën na mu jot jël lu ko waaye mooy seen soxla ñu ñëwaat ci nag yëpp gis nañu que managé ay njëriñ la mu ñëwaat leen rek gis nañu nag que makka nag danañ ko gis ay njëriñ yoo xam ne ñoom la ñëwaat rek njëriñ la yaatu lool muy yaxantu muy jiw bi yaatu affaire képp ku dem makka dana dajeeg sa thème de borom xam-xam dana gisee borom xam-xam la yaxantu kat. dana gise yaxantu kat ya politique kat dana taseet politique kat ya lépp lu ñu ci doxal rek boo demee Makka da nga ko da nga ko gisee sa kat nawle de gisee boobu ñu gisee nag mooy njëriñal mooy njëriñal xaj daa ñu gisoo ñoom ñëpp ko ko seen seen loo xam ne ñu doxale seen yaa ngi ci kon maa doon maa fi ñu xam ne daan ci biir tur yàlla ci suuf yoo xam ne ñu xam nañ yàlla ne mooy ci fan sa bët wala mooy jëfëf xaaral ak jëfëf jëfëf sa bët ci boppam jëfëf mu jëf jëfëf si yàlla ay am mahru maatin la wax ni wax maa doo daatin ca baqara maadudaatin mooy bésëb tabaski ak ñaari bése ko topp bésëb tabaski ak ñaari bése ko topp maadumaatin nag mooy ñetti bés yi topp ci tabaski kon nag ñaari bés yi ñoom mahloom lañ mahloom lañ dëkk bi dëkk bu maatoo la du maaloo dëkk bi ñaan seer ba maaloo la waaye du maatoo dëkk ñu jëra maal waaye ci saaba yi moom ku ci fan taw ci yëpp maaloom lañ wala ñu ko dara ci arafa moo tax dabbari bi ci tasreti ci maali ci gannaaw bu ñu jullee xeer ci tusubaar bay tàmbali dëgg su bëgg dëgg bu ñu doon delloo ñooy kooku mooy ay almadudaat ñu yàlla wax na ko pour la ay almadudaat amma saa fi ñoom te bëgg arafa dañuy tàmbalee kabar yooyu ñu ngi jël arafa arafa kawam dara mu war ko dalee ñu ko ma dara dara mu bay ñu tëdd ñu sant yàlla ci xéewal bi ñu leen jox bu dëgg leen ci kër yi ñu jëlee ñu ak naaj yi ak gàtt yi nga xam ne moom la ñuy bëgg ci dëkk sabati mu ñàkk seen i kooku doon nekk leen ñu ne ashariya kuréel samaat ñu nag nante la luñ soppale ci suñu yéer am nañ ko waral waaxe moo leer leer albaay ba aji wañ so albaq rek a yaay ñàkk soo rayee samaat ñu daal bëgg nañ nga def ci yëf yëf bëgg nañ nga lekk ci yëf ci sa bopp bëgg nañ nga may ci bëgg nañ nga tabax ci mooy yàq goo topp nañu jindi taxasoom ay sukk sukk seen de ñu rajo seen xaj yu ba noppi nag ñu daal di wat seen kawar sangu seen kër ci bis ku yëpp ñu ngi ko léegi seen weer sànni jamra jamra aqaba ji moo jëkk gannaaw ga ñu loj gannaaw ga waaw ñu wat ba noppi def tawaafu ñu xaalati de wala yóbbuwoon ak matal góoram ay université danañ matal ñu sar kuy misal ak ñëw na nga matal la nga misal ba yóbbuwaat ñu ma ku matal ku ma ku misal tabaski itam na na matal misalam dafa tabaski rek dafa tabaski rek ya taw boo nañu war ci gay jigéen ñi war a ko ci bala ñu mooy ponk nga xam ne waa ponk la ci aj aj ñeenti ponk la am armal ak dox diggante Safa ak Marwa ak taxaw Arafa ak tawaafu isaabati tawaafu isaabati mooy ut yooyu ci guddo tolosi wata kutum nag waa te la bu danga def farata rek la waaye du ponk kooku ñu mooy ñi nga xamante ne bu ci yàqu daal ak jëmmam dara dara mu ngi ko jaar wa ñu am suñ ko màggalam xurumaat laay xurum yàlla woowu moom xayma mu aji gën la ñu ko rek koo xam ne màggal na xurum yàlla jëre te sax dina jël lépp loo xam ne yoon tere ñu kot ci turam woowu moom xayma mu gën la ñu ko rek dara ñu ko romb de. dagan leef na lakkum ñeel leen lanaa mu ci kër yi daganal nañ leen ngeen loj ci kër yi lekk ca illaa ma laa nga la def na jàng aleykum ci yéen ak de lu may la nga xam ne xaraamalam koy ka aaya xurrimat aleykum maytatu te saaru maay yooyu moom kenn du ko lekk rek te camin boo teddeen irji sa xërëm irji sa sobe mi ne la saani ci daal waaye xërëm le de na ngeen wattandiku waaw sobe ki nga xam ne mooy jaamu xërëm de bu leen jaamu xërëm wa na ngeen teet waxi nar mooy sakkal yàlla bokkaale na ngeen wattandiku bokkaale wattandiku wépp nar te nar sakkal yàlla bokkaale mooy bopp nar <clears throat> mooy bopp sóor lépp loo xam ne du dëgg soog ca topp mu saa mbir mi ngeen di way jàng way ne yàqu jëm ci biir bi laa <clears throat> ngeen xam ne mooy seen borom moo leen sàkk rek xayra musrikiina mbir moom du ngeen way bokkaale bi ak moom wa man yushrik bu dee ngi sori ku xam nga nam melam ñàkk a mujj ngi mel ni ku yëkkati ba ca asamaan ñu wàcc ko benn picc ci diggante bi fëkk ko lekk ko deena wala mu àgg ci suuf daanu booy bu daan may dafay dee rek de bokkaale yàlla moom noonu la mel borom du mucc mukk mukk mukk benn ñu ray ko ci jaasi sa reexatu nañ def abu jaasi ñuy sarmakaanta doom ya wala aw fanam jiyaat mu dee bu dee lu mën a am rek dafa nekk ci kanamam de zalika loolu de zalika mbir mu naka noonu la de bu man yu'azzim ku màggal noonu saa maa ngi rëllaayee man rek ay dina yàlla fay naa naka moom ak màggalam ñu taxawal ko doon ay nag lañu yàlla kon de mandarga yi yàlla na màggal ko ñu ci xóoru yàlla ji ak sax bépp jullit yonent na jullit moo ko war ma kaaba ga màggal yàlla ci yàlla la bokk rek ndax kum ñeel ngeen fi ah jullit kat yi mën naa fexe ay njariñ xam ngeen ne am ngeen mooy war ngeen koy war ak di jëf bagaar ila jariñ ba jëf dig sama mu buñ tuddee sama wax la jëm de toom ay topp barabam la jëm ngeen béy jëm ca jëm na ca néeg wala xam suba daal di jëkkëre soo indee sa xar yu nag yaa ngi koy lajj ca ba de mooy fa Marwa fekkee Makka nga bëgg a lajj wala ñu de caa xaw a def kulli ummatin naa def na li kulli ummatin ñaan wépp man fa kan jaamu waaye bu ñu jaamu yàlla de xeet gu nekk yàlla na ren soriatu boo xam ne moom lañ koy jaamoo. yes kuroo ñun nañu tudd bismillah tudd yàlla arama rafaam ci lam wërsëgal leen ñun day na ci da nga am ci a moom bàyyi na jibi tëdd fa ilaahukum yàlla seen ilaaham jur jaan fa aslimoo jëbbal leen la ñaan ko de wa bashiri béréral almuxbitiina way topp ñu yàlla almuxbitiina